bu jot su li xewee damay teew may santaat nag di gërëm Croix-Rouge te samay doom a ngi fi yaakaar naa am naa fi juróomi élément kon am naa fi ay doom ñi fi nekk ñëpp itam samay doom lañ parce que képp koo xamante ne maa ngi taxawal parents d'élèves yëpp pour ñëw teew si bis bii sama rakk nekk fi maam jaar sekk nag ak laat sekk jaar fi kon yaakaar naa ak debbo mi di jàppale xale yi kon ku ñëw si Croix-Rouge bi di nga xam ne Croix-Rouge bi am na njariñ am na solo parce que ni nga waroon yaree say doom ñoom ñoo la ko yaral dina si jàppale dina si dimbale kon ñun ñoo ngi santaat bu baax Croix-Rouge ñaanal nag fii ñu bëgg a xale yi ñu yóbbu leen fa ba am ëllëg xale yi ñu tànnee ci ay lu nekk luñ bëgg a tànn nag parce que gis naa ci ñoom ab yar ak teggin gis ci ñoom liggéey gis ci ñoom jom ak fulla man ne sama doom bi mu ciy dugg yaakaar naa ne magam sax def ko tere woon mais dem na ba gis ci njariñ boobu ndax musu redoublé ba ren ji war a def ba ma di ko ñaanal Serigne Touba mu am ko di ko ñaanal ñëpp ñu nga xam ne ni ñu ngi wut comme ni muy wutee sant na yàlla bu baax na di sax waa croix a ak parents d'élèves yeeg ñëpp maa ngi sant bu baax a baax a baax. maa ngi leen xamal nag man moom man boog xaw ma ñàkk ñu des waaye man lépp lu ma xam fii laa xamee moom lu bari xamal nañ ma ko loo xam ne xaw ma ko woon maa ngi ñaax ñu bari ñoo xamante ni yor nañ seen doom fii jàpp ni ñoo ngi si naka sëdu noonu nañ dalal seen xel te xam ni fii moom. suñ lépp moom taxaw na moom ndax defalu ñu si dara lu ñàkk fayda wala loo xam ne dañu fi fo moo donc ñoo ngi fo de waaye wër na borom daal ñoo ngi jàng ñu ñuy jàngal moom moo ëpp sax foo bi dañuy yóbbu foo xam ne sax ñun ñi mosuñu fee dem. waaw dina leen bu baax a baax seen taxawaay yéen ñëpp yéen aussi parent yi macha allah yéen ñi nga xamante ne yéen ñu jox seen i doom ñu si jox seen éducation dina xamal ne fii nag camarade de Croix-Rouge jeunesse la du tëgg ak way ak fecc rek naam sax am na fi. waaye nag li fi ëpp mooy ñu ngi leen di renforcer li xamante ne mooy renforcement pédagogique ci seen jàng dégg ngeen ko sànq seen parents yi wax nañ ko seen biir ñun xale bu redoublé sax wala xale bu nga xamante ne amoo moyen sax dañ lay dàq parce que camaraderie de Croix-Rouge jeunesse du jël xale yi nga xamante ne amuñu moyen bu ngeen gisee fii nii ñu ngi fi defal ay ATM a yeneen ak yeneen di ko exposé nii te lép seeni i lañ ko defaree ak seen xam-xam ñu jàngal leen ko alors que xale bu jàngul lam jàng fële sa école du am xarañte wala am li nga xamante ne mooy xel ñëw di manipuler lii ci ay loxoom kon ñu leen di ñaax yéen ñëpp parents yi ak yéen ñëpp yi nga xamante ne nii dégg ngeen indi seen xale yi camaraderie Croix-Rouge jeunesse que am na njàng am na lu leen fi jàngal aussi li nga xamante ne mooy secourisme junior lépp si biir camaraderie Croix-Rouge kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm lii nag c'était une porte ouverte donc nag yéen des na yeneen plan d'action activité yaa ngi suñu kanam di si ñaax ñëpp di ci woo ñëpp tamit te surtout n'oubliez pas que ne la Croix-Rouge apolitique merci beaucoup. tey nag euh, gis ngeen ne fii ñu nekk mooy école Mamour Diarra euh, war na amal benn ci activité yi camaraderie jeunesse bu comité départemental Mbacké te ki ko jiite responsable di maam Diarra sekk ak euh, xale yi mu àndal ak équipe bi mu àndal ci liggéey bi. ah ku wax camaraderie nag ci Croix-Rouge sénégalaise sam xel day dem ci xale ndax Croix-Rouge dafa am ay pàcc yu bëree baree bëri ci biir pàcc yooyu dafa am cellule de base boo xam ni daa tudd jeunesse ci kaw loolu ñun bu ñu ko naalee suñu président El Hadj Mbaye Sall eh, ci bëgg développement euh, Croix-Rouge départemental ci gunge xale yi gunge nu ñëpp ci liggéey bi eh, ci la Baye Mbaye Sall président comité départemental bu Mbacké waxan ne eh, lépp loo xamante ne bii xale yi naan nañ ko ci activité ci war ko wéyal ci ay weer wala at ànd na ci ñoom moo tax tey ngeen gis ñu daje fii def journée porte ouverte mooy ubbil suñuy buntu ñëpp camarade bi Mbacké ubbi ay buntam parents yi ubbil ko jàngalekat yi ubbil ko adultes yi ubbil ko askanu Mbacke Touba ba ñoom ñu ñëw xam lan mooy camaraderie bu Mbacke camaraderie jeunesse croix rouge ci kaw loolu gis nañ fi parents yi kàddu yi gis nañ xale yi kàddu gi rafet na gis nañ seen responsable kàddu gi rafet na liñ ciy firndeel mooy camaraderie ci croix rouge ñu bari lañ ko umpale tey njëriñ la ba ci njëkk mooy dinañ la yaral xale bi su dee xale bi ñëwee yar bi nekkan ci moom ci ay qualité dañ koy yokk ki ñëw indi ak safaan ba dañ koy seppi loola indil la beneen éducation boo xam te bi su fi xale bi jógee kër ga su ñëwee waajur yi ne tamit soppi na sama xale ci askan ci anam bu baax non seulement dañ la yar waaye dañ la gunge ci sam njàng am nay coup de renforcement pédagogique yoo xam ni ñi fi nekk ndax ci biir croix am man mii ak ñeneen ak ñeneen suñu doyen ay jàngalekat a ne bii seen xam-xam dafa màcc ci jàngale kon su xale bi ñëwee la mu manqué woon kër ga ci euh, volet pédagogique ci ay manquement scolaire fii dañ koy mottali ba xam ne xale bi su fi jógee day mucc miir ndax sunu devise sunu mébét mooy xale bu fi ñëw soo amul moyen dañ lay génne mooy on prend les meilleurs soo fi ñëwee ak moyen bu ndaw su demee nee moo gën a wàññeeku da ngay génn jeunesse croix rouge ndax wéewu noonu non seulement dana la jàngal waaye dana la former ci euh, activité manuelle mooy loo xamante bi xale bi dañ koy tàggat ba ëllëg su nekkee mag mën a demal boppam ci liggéey bu mu defal loxoom non seulement dana la jàng tam ci civisme mooy nga xam sa droit ak say devoir waaye xam itam li sa réew laaj ci yow ak li nga waral sa réew non seulement dana formé ci hygiène assainissement ak environnemental cet ak setal ak fonk sa gox muy savoir vivre dina formé ci vivre ensemble mais vivre dans son milieu yi ma wax nag ñi dégg xam ne jàngal ka lan dina xam ne mooy acte de citoyenneté mooy acte bi nga xam ne soxla nañ ko ci citoyen de demain ëllëg kii tabax réew ma kay nekk président ci xale yi lay génn ndax tàggat na leen c volet boobu kenn du fi génne nekk ëllëg def safaan ba wala nga def sàcc wala ngay wax loo xam ci bi du yoon teewab tey bi nag dafa am solo dañuy joon jàngale réseaux sociaux yi ni ko xelee léegi di jëfandikoo ndeke dafa am ay lu baax ak lu bon ñoom seppi nañ lu baax le ne lii la ñuy jëfandikoo ngir seenam jàng bënn waaye teg nañ fee lu bon li ne duñ ko jëfandikoo ndax day gàllankoo seenam jàng te day manqué seenam yar ci lañ tàbbee ci ñaareelu euh, thème bi muy yaru ñoom ñu ne yaru mooy sama ngànnaay ngir ëllëg ma tekke xale bi nag su waxee lool won koy waajuram won ko waa ko sénégalaise won ko képp koo xamante ne bii waajur nga dal nam xel lii leen ànd na tey ak suñu président El Hadj Mbaye Sall comité départemental bu Mbacké ànd koog candidature bu Mbacké ca njiit bi Mame Diarra Seck ànd koog les jeunes ànd koog le staff et les anciens nga xam ne Croix benn bopp la ñun Mbacké force bi na mooy Croix Rouge dafa dynamique am solidarité manko di yëkkati doonandoo moo tax ñu bokk ci les meilleurs comités au niveau national.